mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV mbokk yi euh, pël baa ngi noonu di jëm ca fa nga xamante ni moom mooy euh, xàmb yee muy garab gi nga xamante ni fa la samp njaq yi mbokk yi garab gi dafa am euh, xorondom yu nekk ci biir garab gii garabu daxaar la te ku ne xam ne daxaar bëre bu ne bàyyi nuuru ba mi nga xamante ni futanke yàgg nañ koo tagg muy borom xam-xam di jàmbaar di pël piir gis ngeen garab gi garabu daxaar la goo xamante ni ci suufam fi la samp xamb yi muy taalee àdduna bi xamb yi xamb cosaan la mbokk yi fii am na garabu xorondom goo xamante ni yaakaar naa ku ne xam ne diggante xorondom ak wërsëg waaye diggante xorondom ak yëkkatiku ca kaw muy borom xam-xam na ma nag Sénégal kenn du ko yàq Sénégal kenn du ko taal senegal kenn du ko dëbbu parce que gis ngeen li xew ci dëkk bi jamono ji tax na sëriñ bi jël engagement ne ma tey émission bi ci xamb yi lañ koy defee ci tool bi lañ koy defee gis nga ko noonu mi ngi xëpp sunguf yi mi ngi xëpp garab yi tey bëgg naa xam lan moo xew sëñ Thierno Ba dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a xuus nag dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëriñ bi ñoo ngi lay ziar alhamdulillah allahumma salli wa sallim ala talaatil haqq bil haqq man la nuura illa nuuruhu wala wujuda illa wujuduhu wala madada illa madadahu wa kafa billahi sahidan muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salaatan tuarifuna biha iya ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi di ñaan yàlla defal ñu tawfiq taysir bi himmati mawlana rasulillahi sallallahu alayhi di ñaanal góor yàlla bu nekk fii mooy Thierno Nourou Ba nga xam ne am na téeméeri at lu teg ci dëkk bii fii ci Ndoyeen koy ziyaara di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan di ñaan yàlla def ko ci Afrique def ko ci Sénégal def ko ci àddina bi yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke alquranul karim sëñ bi ni nga sukkee nii yaakaar naa ni la sa maam yi baaxee daan euh, sukkee di faj aajo yi jaam ñi mais ma gis la nga tiim ñetti njaq ak fa jamono ji toll élection yi jub si na yaa ngi rayante am Adji Sarr andi Sonko li xew ci dëkk bi yëpp ma gis la tiim ñetti njax nga ne ma bërëb bi bërëb la boo xamante ni du ku nekk moo fi dugg li nga tiim nii lan la. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax yaakaar naa lii mooy garabu Dakar. garabu Dakar xaal pulaar di ko wax ni jàmmi. lii mooy xorondong. Mhm. nga xamante ne macha allah xorondong bu tombek Dakar. Mhm. loolu yaakaar naa ku xam na lan la ci wàllu. cosaan ak lan lay tegtale ci wàllu xam-xamu tegtal fii nii ñu nekk nag alhamdulilahi rabbil alamin lu bari fii la xewe wala nga ne lu bari xew na fi alhamdulilahi rabbil alamin mu nekk ñetti ndaa yi nga xam ne macha allah alhamdulilah bu nekk am na lu muy dox bokkut ak moroomam nga xam ne incha allah ku fi yàlla dimbali ba nga ñëw fi liñ lay defal ñu defal la ko fii ñu samplo fii ci kattan yàlla incha allahu taala li nga bëgg di nga ko am lii faa nga téye ko parce ko lépp euh, leeral ko surtout ci wàllum wërsëg surtout ci wàllum am-am surtout ci wàllum daraja lii faa nga téye micro wax askan nu ñu xam kan mooy dëgg-dëgg sëñ Thierno Ba. waaw alhamdulilah euh, ndaari ñette la bu si nekk bokkut ak moroomam yaakaar naa li ci ëpp mooy koo xamante ne dañ la liggéey. wala liñ naan cat wala dinañ làmmiñ walla nga dem xamoo lan moo la dal wala xamuñu lan moo nekk ci am na ci boo xamante ne mooy bii dafa am benn am ñaar am ñett incha allahu taala boo fi ñëwee ci ron Dakar bi nga taxaw ci kaw xorondong bi incha allahu taala mboolem luy liggéey ak luy cat ak luy lamin ak luy jafe-jafe si kattan yàlla incha allahu taala yàlla dina la ko teggil ci nim gën a gaawee boo fi ñëwee ba nga sangu bii ba pare incha allahu taala ki fi ñëwoon jafe fi nga doon dafa mel ni ki rek dafa am luñ rocc ci yow wala dañ la opéré am luñ dindi ci yow képp koo xamante ne yaa ngi ragal ci sa bopp dara rek soo fi ñëwee incha allahu taala dina deñ ci num gën a gaawee ci kattanu yàlla ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne nag mooy jaareelu ndaa bii képp koo xamante ne yaa ngi xëccoo ci wàllu àddina nga bëgg a daraja wala nga bëgg place wala nga bëgg yëkkati ko loo xamante ne xëccoo la yaa ko soxla incha allahu taala boo fi sangoo donte ay millions yi nit ñoo koy xëccoo incha allahu taala si barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi li nga bëgg yow la koy yàlla di jox li ngay xëccoo yow la ko di yàlla di jox tawan aw karxan kum neex ak kum naqadi incha allahu taala mooy ñaareel bi ñetteel bi nag ki nga xamante ne yaa ngi ut wërsëg bayre xam nga dafa nekk ci daqaar ak ci xorondong ñaar yii dafa am tegtal yoo xamante ne ñu bari soxla nañ ko mm-hmm. ci fii la am te fii lay nekk incha allah te ku ko fi def wax naa leen ba sonn xam-xam du fen nit ki mooy fen wala nga bàyyi sa yoon waaye xam-xam mm-hmm. niñ koy defee wala ni ko maam yi doon defee ku ko defee noonu incha allah taala li nga bëgg di ko am wàllu bayre bu gaaw wala wërsëg fi nga nekk kenn du la yërëm li yàlla di séddale kenn du la ci ëppale ak foo mënte nekk mooy bu ñetteel bi incha allah ku fi ñëw nga sangu ci incha allah taala kenn du la ëpp wërsëg te kenn du la ëpp bayre si kàttun yàlla incha allah. te fii mooy Ndoyeen. fii mooy Ndoyeen dëkk Cerno Nuuru Ba ñu bëri ñëw nañ fi ñu bëri xam nañ dëkk ba dëkk bi nga xamante ne cosaan lam lépp maam yi fi nekkoon yëpp ay borom xam-xam la woon ci lii lañ doon dox incha allah taala si kàttun yàlla. bu ñu tuddee takk xel yëpp dem ci pël dégg naa ñu naan pël ku mu takk du rëcci rawatina pël boo xamante ni juróom-ñaari maam ci wàllu ndeyam ay pël lañ juróom-ñaari maam ci wàllu baayam ay pël lañ suñ Cerno pël pér nga te dégg naa danga nga mën a ma gis la nga taxaw ci wetu garabu ci xat gi lii la la. alhamdulilah xam nga nopp wax naa la mooy jat mooy nga ne saalaali Muhammad waalaali Muhammad sira bettey saara bettey sira bettu ma la yàlla moo la bett gis nga garab bii ngay gis. alhamdulilah bii mu ngi sax. boo ko daggee nii nit fii ngay jëlee turam ak tur yaayam su dee dafa am loo soxla dafa am na koy defee incha allahu taala ñi bëggante laa la wax am na luñ fiy def ñetti fan ku mënta doon deñ le jàppa sa xel ak sa xol te dina soppeeku loolu dañ koy def ci ganaar bu góor ak bu jigéen wala ci naat bu góor ak naat bu jigéen kuñ ci mënta nekk incha allah ñetti fan laa la may jant bi suy lang di dugg ak buy génn mhm. lañ ciy def liñ ciy def incha allahu taala xelam ak xolam mhm. dina nekk ci lépp loo bëgg si moom di nga ko am incha allahu taala si barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu nag xam-xamu cosaan la xam-xamu jat la mhm. danga koy def léegi léegi léegi incha allahu taala li nga bëgg nga am ko léegi léegi si kàttun yàlla incha allahu taala. Euh, gis naa tool bi euh, sànq ñu andi fi ñetti nag benn bi moo ci des bee lan moo ko fi bàyyi nag lu ko fi bàyyi ak nag bi lan moo ko tax a jug. xam nga ku ne xam nga lan mooy njot. njot lan mooy njot. mooy li naan fidaaw. fidaaw. mooy nit ki day dem ba amatu ci moom benn yaakaar. Mhm. ñun am na secret bi ñuy def ci turam ak turaayam. ñu jël ko jox ko nag bi mu lekk ko. ñu rendi nag bi am façon sarax biñ ci def ci kattanu yàlla incha allahu taala kooku moom. du dee ci at moomu te di dundaat ay at. suñ wallahi laazim loolu mooy fi daaw. loolu ci nag leen koy def koo xamante ne faj nañ ba sonn amatuñ ci moom ci benn yaakaar buñ ko indee dañ ko defar loo xamante ne ci nag ñu rendi ko ñu saraxe ko mhm. dina dox dem doxi ay soxlaam incha allahu taala. sacrifice am na solo ci kaw nit sacrifice day fanq lu bëri. loolu mbir la loolu kay yaakaar naa lu nit gàtt gàtt xam-xam. Mhm. loolu gis nit. su demee bañ ragal ci moom am lu ñu def ci nag ñu rendi nag bi incha allah moom day dox day jóg dox doxee ay soxla incha allah taala la ko waroon topp lépp nag ba lay ma ne ci jour bi lay jóg dem ay soxlaam incha allah taala te li ma la wax. Mhm. kooku noonu mu ngi fi du yaa ngi fi. Mhm. seetaan seetaanaat incha allah taala dina jog de doxe ay soxlam si kàttanu yàlla. lay bàyyi ñu dem ca pilaan ba toog waxtaan ndax mag nga ta mag kenn du ko taxawloo euh, lu yàgg ñu yàgg ci bërëb ba toog waxtaanee li xew ci dëkk bi. Euh, jóge nañ ci garabu daxaar gi. Euh, fekk nañ la fii ci sa keppaar gi nga ne ma àll bi li muy rëy rëy li àll bi lëndëm lëndëm li muy yaatu yaatu fi ma ci gën a neex moom mooy bërëb bi lan moo tax nga ne bërëb bii moo la gën a neex. waaw alhamdulilah soo gisee ñuy tànn àll bi xam nga loo gis dafa am bërëb nit ci kër lay dëkk ala kulli xaal àll bi nag dafa am lu fi dëkk ci wàllu ñun pël li ñuy soxla ci àll bi la nekk. te xorondong bi ak daqaar bii nii am na ci loo xamante ne ci irsan fi nga ko mën a defee jinne du dëkk ci kër du dëkk fi nit dëkk ci àll lay dëkk te dafa am ñoo xamante ne booy joxoo moom ci lu bari ci àll bi nga koy mën a fajoo moo tax ñun lu bari fii ci àll bi lañ koy defee ala kulli xalin ki ci mel ne koo xamante ne tey dàll bi ngay gis ni nga xamante ne gis nga ni mu bindee soo xoolee nga xam ne yàgg na lool waaw képp koo xamante bëgg ngaa jóge ko si dëkk bi nga tukki ci dëkk. Mm-hmm. am na loo xamante ne buñ la ko defaree incha allahu taala boo indee carax yu bees ñu defal la ko. Mm-hmm. am na tegtal yu ñuy def ci dàll bi. ñeent fukki guddi ak benn doo ko toog ci dëkk bi ti tukki woo mm-hmm. ni nga xamante ne ku bëgg a si léegi léegi liñ daan noddi tere dafa am luñ lay defar léegi léegi léegi balaa ñetti fan di nga ñëw foofu ci barab bi fi nga dëkk incha allahu taala si kattun yàlla ku ne pël nag di nga ne seet. dina ko mën seet nga. waaw alhamdulilah seet moom ku ñu am sa tur sa tur foo mënta nekk mm-hmm. incha allahu taala lépp luy sa xibaar lu passé fukki at rek lii ñëw dañ la ko wax incha allah lépp loo xamante ne muy sa sarax dañ la ko wax te dañ la defal tegtal yoo xamante ne sa jafe-jafe yëpp yàlla dina ko dindi si kàttanu yàlla incha allahu taala si barke yonent bi lii ab question la lii yóbbante la dafa am ñu ne ma euh, àll ba nga xamante ni mooy ndooyeen pël mm-hmm. dëkk suñ Cerno ba. Euh, dégg nañ ku sangu ca tool ya ku sangu ca àll bi yàlla fa see aajo mais dafa am ñu nekk bitim réew te mënuñoo ñëw ñooñu bu ñu bëggee am ci ñetti njaq yi hmm. nan nga leen koy liggéeyee ba ñu jot ci te du bokk ak ñu ñëw. ñetti njaq yi loolu yomb na dañ leen koy yóbbante mais dañ leen koy defal nga xamante ne buñ defee bu nekk. su dee ñette bi lañ soxla mën nañ koy yóbbal su dee benn bi mën nañ la ko beral ñu defal la ko incha allahu taala nga sang det loolu du mën ta nekk ndox yaay dem nga defaral ko sa bopp incha allahu taala waaw mais daal am na loo xamante ne ku ko soxla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mm. da ngay ñëw fii bésu altine wala alxamis boo fi ñëwee incha allahu taala mm. li nga doon tawat yàlla dina la ko dindil si kàttanu yàlla foo mënta nekk tamit suñ la ko defaree mm. bésu altine ak alxames nga koy sangoo ci boo ko defee li nga bëgg yàlla dina la ko defal sa aajo yi dina faju si kàttanu yàlla si barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi gisee politiciens yi Sénégal léegi gars yi xëccoo tax na ñu yàqante der xëccoo tax na ñuy saagante léegi dégg naa xëccoo am réew sax jaral na politicien mu fay nit ngeen ñu rayal ko nit. waaw alhamdulilah xam nga nguur cëru yàlla la. qul illahumma maalikal mulki tuuti mulki man tasha. yàlla mooy jox nguur ku ko neex. wa tunzi'u mulki mimman tasha moo koy rocci ci ku ko ku ko neex buy kon comme que yàlla koy joxe jaare yàlla ne xalifa mi mooy doomi aadama mi mooy nodd nit ñi ñu def li soob yàlla mhm. ñu bëri jàpp ne ñooy jël seen carte d'identité voté waaye ci machiatullah si coobar bi yàlla lañ koy defee mhm. loolu jarul xëccoo jarul fitna jarul dara ak koo mënti doon sa nguur lum rëy rëy rëy jour bu muy jo jeex doo fexe ba fanaan ci pale bi benn guddi li ngay xëccoo xëccoo xëccoo nga taal dëkk bi def fitna bu la neex te yàlla narul ngoo falu doo mos falu mhm. kon daal nañ rafetal utin wi ñu rafetal wax yi ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko moom jarul fitna ku jeexal di nga dem ki sa waxtu toog ñëw ala kulli xalin di nga toog kon jarul fitna jarul xeex jarul xuroo ñun ñoo moom dëkk bi ñoo koy defaral suñ bopp loolu yëpp dañuy utiliser doomi aadama yi rek waaye ku sa waxtu toog jot di nga toog ku ku jeexal di nga dem incha allahu taala. sëñ bi bu ñu la tuddee xel yëpp dem ci garabu ngóora garabu kattan euh, nga ne ma am na garab goo xamante ni ci kattan lay dox fii laa koy liggéeyee ci àll bi fii laa koy liggéeyee defar ko jox nit ki mu jëfandikoo ko ci kàttanu yàlla dootu jàmbatati néew kàttan. moom kay incha allah boo ko boolee yàpp xar. wala ganaar bu góor. incha allahu taala kàttan moom di nga ko deewaaleel incha allahu taala. ci kàttanu yàlla. kon télé baaxul. de télé moom yàlla nañ ci musal waaye ala kulli xalin mag ñee fi nekkoon. Mhm. daan nañ am. juróom ñetti fukk soo gisee léegi loolu bareetut te dañ doon yore ay ñeenti soxna ne ni ñoo bàyyi tegtal tegtal yu mag ñi ku ci dellu rek incha allah di nga takk ñeent te mën nga njaboot ba nga am juróom benn fukki at juróom ñeent fukki at. incha allah am na mbër mu mag la xamee woon nga koy eh, ngembu ana mbër mi jamono ji mi ngi ci jàmm ci lu nekk. waaw alhamdulilah mbër mi mu ngi ci jàmm waaw mu ngi ci jàmm bu baax mu ngi ci ay entraînement mu ngi ci ay liggéeyam. ci liggéeyam. Mhm. waaye daal fa ma fa. alhamdulilah kooku suñ kóllëre la liñ seq man ak moom la suñ kuréel la ak diggante ak yàlla incha allahu taala su waxtu boobu jotee ñun si xaaruñ ko ci dara suñ diggante ak si borom parce que loolu dañ ko doon def boobu xamuñ ko. jegewuñ ko. loolu dañ koy def rek li way sil karim yi incha allahu taala. sëñ Thierno lan ngay tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci MPROD TV. di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq tey cherché barke yonent bi salaay salaam réew mi. yàlla def fi jàmm ku ku ku ko nar a fitnaal wala ku fi ñaara taal fitna boobu yàlla dellu ci ci barke yonent Muhammad sallallahu alayhi wa ci barke alquran nañ woote jàmm ku jeexal jóge fii mhm. ala kulli xaalin incha allahu taala réew mi yàlla na ci yàlla def jàmm mhm. defal ñu tawfiq tachir ci barke yonent bi salaay salaam ci barke alquranul karim mhm. ñu ngi nuyu suñu waajur Ceerno Nuuru Ba nga xam ne mag la ci lislaam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ay ca mbokk yi dégg ngeen waxtaan wu am solo wi Serigne Thierno Ba waxtaan mu nekk waxtaan woo xamante ni njariñ la nekk waxtaan woo xamante ni ngëneel la ñu fekkoon ko fii ci àll bi ca ginnaaw Sébikotane muy ndooyeen pël ndooyeen tukkulóor ndooyeen gi nga xamante ni ay maamam ñoo fi sanc di fi faj aajoo jaam ñi mbokk yi jëmm ji toog kilifa la boroom xam-xam la. baayam El Hadj Nourou Ba nee naa la sànq fu tànke yi ak tooroodo yi yàgg nañoo jël seen xalima di ko way di ko kañ di ko tagg ngir lan aar gu mu aar tund fuuta ak li ko wër keroog bi nga xamante ni tuxu si na fi nga xamante ni moom mooy ndooyeen sanc ko yaakaar naa dëkk yi ko wër lépp ñoo ñëw jox ko seen bopp ba tey nag góor gi mi ngi fi góor gaa ngi dund yàlla yàlla guddal aw fanam waaye jëmm ji toog moo yor liggéey bi jëmm ji toog moom mooy loxoy góor gi jëmm ji toog moom mooy tànk góor gi jëmm ji toog mooy léppi góor gi kon aco numéro téléphone sëñ Thierno Ba mi ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk ñi doon topp di ñu ci MPROD TV yi yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah